élection yi nag wane na lu rëy ci biir dëkk bi wane na seen cofeel ak seen confiance bu ñu amaat suñu équipe bi nga xam ne moo fi nekkoon jaar ci sama jëmm ji jaar ci la coalition Yewwi Askan bi loolu nag ab soññee la soññee bu am solo boo xam ne nii wax nañ ñu ko kon fas nañ yéene incha allah ci collectif googu ñu am ci man ci biir juróomi at yi nga xam ne moom lañ dëgmal ñu ànd ak yéen liggéeyal askan bi liggéeyal askan bi moo ñu fi tax a nekk te confiance boobu danañ fexe ba mérité ko lii am solo xëy na victoire bi yéen a ko moom seen mbégte la ndax seen taxawaay dafa rafet. wàllu budget bi ñu jox conseil départemental je crois que ñu bari xam nañ maanaam tolluwaay budget bi te loolu ñaaloo nañ ko ba tey depuis 2014. muy que ne maanaam chaque année budget bi nguur gi da koy wàññi te loolu muy muy li jaaxal loolu ndax suñ nattaangooy département yi Sénégal gis nañu département yu bari Mbacké moo leen ëpp solo ci dayoo bi ndax Touba ndax dafa am benn critère bu am solo booy def joxe budget mi maanaam population bi ndax population boobu seen daloo seen dayoo dafay impacté ci seen i soxla danañ soxla ci mbirum njàng mbirum wér-gu-yaram mbirum jàppale xale yi mbirum les infrastructures kon soxla yi day gën a bari di gën a yokk ngir population bi ni muy yokk loolu nag mooy critère bi nga xam ne ci la ñu war a basé wu pour joxe budget waaye nag li ñu ràññee naqarlu ko mooy depuis 2014 budget bi ñoom dañ koy wàññi te xamuñ lu tax ñu di ko wàññi loolu nag dañuy ñaan euh, nguur gi nag départ Mbacké département la wax ne ni dafa bokk ci réew mi ay citoyen ñoo fi nekk ñu war a respecté seen yelleef ak seen aq ndax li leen war ci réew mi ñu ngi koy def dama wax sax tubaak ak sax li ñuy contribuer ci PIB wala PNB bi au niveau national wàllu TVA loolu rek bi ñu ko joxoon rek eh, indiwaat ko dana doy sëkk bis kon day mën nekkoon tubaak Touba ak bi li ñuy li ñuy contribuer ci PNB bi loolu dafay développer yeneen gox loolu nag la ñu xëy na sax danañ contribuer ci yeneen waaye nag li nga xam ne mooy dayab maanaam département bi daal war nañ ko jox dayam ci wàllu budget loolu ñu ngi ciy interpellé le président de la république et son gouvernement population Mbacké ñoo ko soxla du Fallou Mbacké en tant que président en tant que président conseil départemental nekk opposant moo ko soxla mais population Touba ak ñoo soxla budget boobu pour mën cee doxal seen soxla ci wàllu liste commune Touba yaakaar naa question bi population ñoo ci tontu. Mhm. du man maay tontu population ñoo ci tontu ndax population yi ñoo tontu wooteel trente neuf mille bulletins blancs population ñoo tontu wooteel équipe boobu onze mille cartes kon day ma ne kon ñi woote contre ñu ëpp ñu woote pour pour Abdoulaye Wade wala wala maanaam équipe am loolu nag dafa laaj am njàngat. ci moom mi ñu élire entre moom moom mi jiite équipe boobu mais ak kilifa yi jiite dëkk bi tamit su ma nekkoon place su Abdoulaye Ka man damay démissionné ah, loolu loolu nag man la concerné su ma nekkoon place su Abdoulaye Ka man damay démissionné tey waaw ci ñaareelu question bi pour jox loxo nguur gi nguur gi amuñu ma relation bi ñu am ay relation bu ñu inscrire la dans une république normale. ndax bu ñu fàtte ne muy commune bi département ay bànqaas lañ ci nguur ay bànqaas lañ ci nguur gi ñun bëriwuñ rek na nañoo nekk euh, kuréel goo xam ne nii dafa contre nguur déedéet kuréel gi en tant que département maanaam contre nguur Fallou Mbacké en tant que politicien man politique moo nekkut APR moo nekkut benn bokk yaakaar mais président di conseil départemental moom mi ngi ci nguur gi la nekk man maa ci nguur gi parce que maanaam. Euh, commune muy département ay bànqaas lañ ci nguur gi ay demande lañ lañ foofu lañ war a woote nag ñu xamal ne ñun posture républicaine lañ nekk ci li ñuy liggéey moom amuñu lu ñu ci yàqal nguur au contraire li ñuy liggéey nañ ci jàppale nguur ndax nguur moo jël ay ay ci wàllu maanaam décentralisation jox ko gox goxaan donc pouvoir yooyu ñu jox muy compétence transféré yooyu ñun ñun ñoo ko yaral nguur gi. ci maanaam population yi kon nag amut maanaam relation opposant bu nekk entre ñu ak nguur gi amu fi relation d'ensemble la war a nekk ñu ànd liggéey maintenant bu dee ci parti politique nag mën na nekk leneen mais bu dee ci institution bi nag institution bi ci biir maanaam ci biir nguur gi la nekk du opposant parce que li muy liggéey nguur gi la koy defal tax nguur gi moo waroon def loolu mu jox ñu cër yooyu ñu def ko defal nag waaye daa mel na ñoom dañuy xoole ci wàllu politique loolu man yàqaluñ ma man population Mbacké la ñu yàqal naam dana ma naqari quand même ndax ñooñu ñoo fi nekkal man population yi